acte bi nga xamanteni ni posé nañ ko tay bi nga xamanteni ni ñëpp génn nañ malgré canicule bi malgré tangoru Kaolack ñëpp ñëw répondre à cette marche pacifique là aboré couleuru parti bi couleur couleuru Sénégal day wane né encore une fois rek gars les patriotes de Kaolack sont déterminés et euh, projet bi ñor na leen te ils sont prêts à ce que ñu protéger projet bi di remercier les 63 cellules yi nga xamanteni

ak mbindeef bu mën a tudd ak bu mën a doon du moom mooy naxasal projet bi donc lii lancement la di wax président Macky Sall ñetti mbir lañ koy wax benn bu ci njëkk mooy troisième candidature bu ko xalaat président troisième candidature bu ko xalaat deuxième mooy li ngay ruumandaat di ko wax ci suuf mooy fexe ba empêcher président Ousmane Sonko mu nekk candidat 2024 du am troisième point moi, ni nga ce sont des dignes fils du Sénégal ay sénégalais de ça lañ détourne détourné C'est un seul tort moi. le fait que ñu gis projet bu baax projet pour nous, ne mën na jëmal Kaolack kanam ñu jëmal Sénégal Karam muy le projet passé, nous ñoo beaucoup ci projet boobu di ci Baye Sen ñàkk di ci nous seen dërëm ñooñu nga jël làkk jant bi leur place n'est pas en prison libérez ces otages président Macky Sall libérez ces otages wane ne Kaolack mosuñ des ginnaaw si combat te combat bi nga xam ne nii nag ñun entamé nañ ko combat bu légitime la sàccuñu fenuñu yoolewuñu defuñu leneen dañu nekk dañu génn tey ngir xeex li nga xam ne mooy la restauration de la démocratie et des libertés di waa li nga xam ne nii mooy mooy les les arrestations arbitraires yi nga xam ne nii def nañ ko suñu frère ak sœur parti yi ah may cité ci ñooñu noonu notre frère Fadilou Keïta

normalement ñu ne da nga far jël la japp la tej la donc li nga xamné ñu constaté am Sénégal di jëm kanam toujours di rendre bi bu fi am place té place bobu la bañ ma am fi mo waral. am du fi am du fi am di wax une journée journée sociale. pour toutes les femmes sargal jigéen ñi am jom nag laa wax jigéen ñi am dignité jigéen ñi bañ ñoom la sargal suba fii bi buñ fa jógee bu leen fàtte le 14 bu sell mi daa woote. le 14 bu sell dafa woote bu ko kenn topp bu ko loolu weesoo. na ñëpp génnaat Sénégal ñun ñoo ko moom am nañu droit manifester Sénégal plus légitime boo xam ne am nañ ko te suñu constitution moom moo ñu ko may donc on va manifester pour wax ci li nga xam ne nii mooy amertume bu nga xam moo ne suñu xol